nga xamné ñoy ñooy acteurs porteurs yi surtout ñi nga xamné ñoy ñooy membre ASTAP dont dont je suis membre là-bas ñi ngi féliciter le colonel Abdourahmane Dieye ci nomination bi di xaar ci mom nak rénovation yu Baré, Baré, bëri parce que je crois que amna amna capacité bi amna na bi amna na mi parce que côtoyé naa ko bu baax baax baax te xamna né euh le président Macky Sall choix yi mu gëna def ci début d'année bi choix bi mo ci gëna judicieux parce que il est jeune il comprend sa génération xam la douane bi et puis dina peut de réorganiser waat douane bi nekk benn douane bureau yi nekk bureau liggéey bi nekk bureau Tracasser yi nga xam ne ak euh, difficulté yi nga xam ne am ci procédure douanière je pense que Abdourahmane il est apte et capable pour pouvoir gérer ça. ki fi jógee du nitu dialogue parce que c'est quelqu'un qui xam ne dafay dafa bëgg bras de fer à chaque fois que y a une situation qui est là. lu jëm ci l'importation, importation bi lu jëm ci commerçant yi lu jëm ci mbirum transfert bi chaque fois quand il parle, il a l'impression que c'est lui qui, c'est lui qui a le dernier mot. D'où notre négociation. Par rapport à Abdurrahman, je le connais, à chaque fois qu'il quand il était chef de bureau, il y a un problème dans son bureau, il y a des dialogues, il y a des négociations, il y des solutions avancées. Je pense que le président de la République, Falco, directeur général, il y a peut-être renseignement, qui Nous a un peu de nitu dialogue la nitu perspective la. boo xoolee euh, année bi ñu génnee nii ñaata grève comme moo fi am entre euh, les commerçants ak ak la douane ñaata grève ñaata yoon la euh, commerçants importateurs yi banque seen loxo lu jëm ci li nga xam ne moom waral tey mu indi tey une chute vertigineuse sur les importations parce que commerçants ils bëri nangutu ñu importer parce que bras de fer boobu nga xam ne DG moom la fi nekkoon di teg di ko imposer xam nga di wax ak ñom ben façon wax bo xamné amul ben parce que nit ko xamné da ngay liggéey ak mom té recette yi nga soxla ci ñom lay joggé dafa am noy comporté woog ñom donc lolu mo indi euh, dysfonctionnement yu bari am ci ci liggéey bi et douane sénégalais je me demande sax ndax atteindre nañ sen euh, objectif ren. le niveau d'importation dafa baissé parce que rew sax du du basé wu ci importation pour pour mën a defar dëkkam mais comme Sénégal ci importation lañu basé wu parce que. recettes yi nga xam ne état bi moom la soxla ci importation bi la ko gën a mën a am ci exportation bi niveau bi dafa baissé booy xool war na mën à cinq pour cent boo xoolee 2014 ak léegi li niveau d' importation bi baissé wu dafa daf dafa doy waar loolu moo waral nga dégg naan dëkk bi amul xaalis xaalis bi circulé wul parce que commerçant yi aussi mënuñu jël di importer ay produits ñëw douane bu cher taxation bi metti bu ñu jaayee duñ ci mën a génn bëgg a continuer aussi di importer moo waral nga gis mu am benn benn benn benn benn benn chute. bu doy waar bu am ci importation yi. li ma ko xam ci cadre liggéeyam muy sa façon de manager am na fulla am na fayda am na poids am na personnalité te bureau bu mu mës a yor day dox de façon normale donc ci loolu laa ko xamee ci loolu laa koy waxal xaw ma mbaaxam parce que sequñoo maag moom ay affaire mbaax ak yooyu li ma ko xamal mooy c'est quelqu'un qui est ouvert quand tu as un problème dans le bureau il te reçoit et il règle les problèmes deuxièmement dafa ñëw ci génération jeune la je crois qu'il est né en en ou 76. xam lan mooy li xew ci monde bi dafa ne ci jamonoom donc mun na comprendre ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di liggéey ak moom de façon intelligente il est là mais il est international donc xam na li xew ci àdduna bi en matière de commerce en matière d'importation en matière d'exportation en matière de développement donc c'est quelqu'un qui est vraiment là où il devait être am na ay points yu saillants yoo les acteurs portiers du nañu ko discuter à des douanes mooy lu jëm ci surtout les importations sur les véhicules parce que je les taux de dédouanement dépendent du monde. parce que c'est des taxes ça été des lois qui ont été votées Les droits yoo ça a été voté mais ce que je veux a a surtout les visites au niveau du port Une autre plateforme pour les acteurs portiers, pour nous-mêmes. parce que di jël ay sociétés yu mel ay Intracom wala ay ay contenir, diko fa yóbbu ñu ko fay dépoter di dépenser ay xaalis jeex lo c'est au détriment des importateurs deuxième cas nous bëgg mu taxaw ci les véhicules usagés en provenance des des États-Unis nous xam nañ ne dollar bi mu ngi fluctuer parce que dollar bi tay mu ngi francs té ñom au niveau de l'administration des douanes les véhicules yi nga xam ne ñoo jóge Amérique dañuy interdit abattement té texte bi waxul loolu texte bi dafa tous les véhicules usagés doivent faire un abattement de 20%, té loi bi waxul sauf mais on a vu que pour les véhicules américains les gens dañ ci teg ne abattre actuellement euh, le taux de change du dollar est presque à 600 francs plus un taux de dédouanement des véhicules qui est presque à 62,38%. parce que nous, les Amérique aussi si ay ay doomu Sénégal lañu bu ñu avons fii di importer abattement de 20%. Nous avons abattement de 20% et sénégalais quelque part ils sont lésés Le déséquilibre la nañ ko que boo nekkee xalé nekk jeune nga ñëw ñu fal la directeur général des douanes bul def na ñëpp daan def da ngeen di sa tous personnel la mu nekk woon ci bureau bi mu nekk nitu dialogue nitu consensus un homme qui est vraiment serré dans son travail mu continue ko à l'être té mu ubbi ay perspectives yo xamné bu fi jugee ñu né Abdourahmane kat bu mu nekkee directeur général de telle date à telle date mo fi def li li ma koy ñaan aussi moy maa ngi moom mos waxtaan ci benn plateforme pour faire un séminaire pour toutes les difficultés yi nga xam ne moo et ci importation bi ak au niveau des commissionnaires agréés en douane au niveau de la douane nous avons ko def séminaires séminaire boo xam ne diagnostiqué problème yëpp dafa mémorandum mu nekk benn feuille de route les acteurs portuaires sont en train de se réorganiser et de façon très concrète Souvent ma amoon que le colonel Abdurrahman, le nouveau directeur général des douanes dama ko naan ko changer sa façon de faire. Parce qu'il a été quelqu'un de très compréhensible. Il est quelqu'un de très social, il est quelqu'un de très réfléchi et il maîtrise l'administration des douanes. Nous continuons de lancer pour nous. Nous sommes des acteurs. Nous avons pour que nous ayons réussite. Nous avons des les importateurs, les commissionnaires agréés en douane, les acteurs portuaires. Nous avons des gens qui dialogue ak comme nous ko nous. parce que nous na des de bureau à chaque fois qu'il y a un problème entre un importateur ou un commission agréé en douane avec un vérificateur ou un chef de visite nous avons tracer de façon très réfléchie et de façon très intelligente donc loolu lañ koy continuer di ko ko que en le président Macky Sall choix bu mu ce def pas fortuite et si nous il a fait un très bon choix.